masawa isjaa joxoon nañu benn baat buy laa ilaha illa allah mu ni maa wasiani samaai wala ardi walakin wasiani qalbu abdin muminin yaqulu laa ilaha illa allah asamaan yaatoowul ba daj ma kon xawma fu du suuf waaye xol bu ni laa ilaha illa mën naa banku ca biir kon bi mu waxee loolu ma gis ni alhamdulilah sant yàlla ñaanal Chérif Ibrahim mi nga xamante ni tey ci moom la jaara yàlla jaare la nay toog fii naan laa ilaha illa naan allahuma salli sayidina muhammadin di jàng jawhara man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajra ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyama ki njëkk fëx ku ca toppati rek lu ñu ko fay rek faykee ba pare kon yàlla na ko yàlla fay ci liy mënu indil muy xéewal boo xamante ni te boo fi dee toog di wax laa ilaha illallah di ko wax boo fi jógee ca yóbbante laa ilaha illallah feeg yaa ngi fi del si laa ilaha illallah di la toog du la bàyyi mukk yàlla rek moom ak wéttal goo xamante ni du la bàyyi mukk ba nga teere ci moom yàlla rek mooy dëkkandoo bi nga xamante ni bu xësee ba dëkk ak yow jeex na kon nag su ñu amee koo xamante ni indil nañu lu mel nii te waxoon naa ko fi waxaat ko fi waxaat ko fi géew boo xamante ni soo toogee ni bismillahi rahmaani rahim jàng astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum fanweeri yoon muy saabu boo raxasoo mu fóot la ba nga set mu boole ñetti turu yàlla yi nga xamante ni ku ci ñaan yàlla yàlla nangul la allahoo ngi ci alxayyoo ngi ci alqayyoo moo ngi ci ñetti tur yooyu moo tax boo demee ci azamu ayatin inda allah fi bu déparé rek allahu ngay gis laa ilaha illa huwa alxayu alqayuumu moo tax mag ñi di wax ni li ñu la jox ci sa secret tariqa nga naan astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum saa yoo tàmbali jàng fatiha ne astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ñun la daawta allaha bi ismihi alladi ida duita bihi ajaba ah man kat damay faf faf <laughs> barakallahu barakallahu déedéet déedéet déedéet toogal fii baax déedéet ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko jox wàccuwaayam waaw bu ma eggalee tabaarakallah ma ni soo tàmbalee rek ne astafirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum ñetti tur a ngi ci yoo xamante ni dañu lay wax ni la daawta allaha bi ismihi alladi ida duita bihi ajaaba ñaane nga yàlla ci turam bi nga xamante ni ku ko ca ñaan mu la nga départ julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni damay faral di wax ni Cherif Ibrahim damay faral di wax ni yonent bi mooy alfaatix te mooy miftaax moom mooy alfaatix ndax alfaatixa li ma uxliqa wax waaye mooy miftaax mooy ubbi lépp waaye nag bu ñee nañ ubbi dañ naan ana caabi gi yonent bi nag amul ñu naan nañ indi caabi gi déedéet moom mooy ubbi waaye moom mooy caabi ji defe naa mos naa laa nettali ni la sa soppe ba góoru yàlla nga si alxaj abdul aziz radiallahu taala an mos naa toog ci fii ci pom bi yàlla may ma ma fekke mu bind benn xasida woo maam alfa si doomam ni ko indi ñëwal mu ñëw booba sax xam naa ni yaram wér gungewu ko mu tëdd ni ko jàngal ma xasida bi ma dégg yàlla may ma ma fekk ko ci biir pantre bi bi maam alfa jàngee ubbi jàng faatiha ba ni wala daalliin daldi ni allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfaatixi lima uxliqa mu ni ñokket ni tëwit loxo maam alfa bi téye ci moom téye ci da ko maam alfa waxaatal li nga waxoon ma dégg maam alfa ni ko allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi li ma uxliqa mu ni ko maam waxaatal li nga waxoon ma dégg maam alfa ni allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi li ma uxliqa mu ni doy na mu ni bu fekkonte ni sayidi cheikh ahmad tijaani radiallahu taala anhu biñ koy jox tariqa bi joxuñu ko lu dul allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatix li ma uxliqa mu doy sëg li maa ko ndongoo ci làmmiñ sa xaj doxal kenn nit liw ma mu ne lu ñu bëggati am lañu am bëggoon am nañu li tëju woon yépp ñu ubbil ñu ko tiggeeku na lan naa ci lan lu ci tegoo ci léegi keroog loolu la si xaj doxal waaw léegi yow ñu may la nga naan allahuma salli ala seydina muhammadin alfaatixi li ma uxliq teg ca wal xaatimi li ma sabaqa teg ca naasir alxaq bilxaq teg ca haadi ila sirat almustaqim teg ca wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim ni am na ñoo xamante ni nuur lañu leen binde muy malaayika yi ñoom sax am na ci loo xamante ni par benn lañ leen cay jox ñu koy zikar kon tabaarakallah ku nu indil daje bu mel nii nga mën fee ñëw di fi dundal sa xol di fi dundal sa ruux ci ndigal wax dëgg yàlla boo fi toogee war nga ne alhamdulillahi rabbil alamin moo tax ma ne alhamdulillahi rabbil alamin maam sëriñ Babacar radiallahu taala an am na benn xasida bu muy tàgg Seydi Cheikh Ahmed Tijaani radiallahu taala an dafay wax ba ci yàgg mu ni yaa man yaruuxu wa yagdu birraxiili wa qad shaddat mataayaahu min salma bi yabrini in zaada himmataka alaliya ashawquka min salma fa ballir salaami xayra mamuuni waaye waqul laha ana ilfun surtout mu'tazilan an il majaami'i fi awsaafi maktubi yow muy xëy ak gont di dem ci sayidi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu saa yu sa yittee delloo ko ba ngay delluwaat ca moom ne ko maa ngi koy yóbbante nuyoo man daal dem naa ba nga xamante ni dañu ma miin loo mbooloom ba mënatumaa am meneen mbooloo su ma fa gëjee rek feebar ndax mbooloo mi danga fiy defar kon fa tabaarakallaahu boo ko boolee nag qaadi ayaat dafa am lu mu wax qaadi ayaat dafa toog ba ci yàgg mu ni mu sadd ñaari bayit sante ko yàlla mu ne wa mimma zaadani sharafan wa tiihan wa kittu bi axmusi atau duxuli taxta qawlika yaa wa an sayarta ahmada lii nabiya mu amul sharif dama toog ba ci yàgg mu ni li nga xamante ni daal xool naa ko am naa ñaar yu ma yaakaar ci sama diggante ak sama borom bu ëllëgee mu ni li may dolli tedd nga ak puukare mooy bu ma xoolee sama bopp ak jaam laa tudd kon dugal gi ma yàlla dugal ci jaamam yi ba bu dee wax naan yaa ibaad ma xam ni bokk naa ci yaa ibaad yi jaam yooyu sant naa ci sama borom mu ni beneen bi ci desit mooy bam ma defee ma di jaamam daf ma boole ci ummatu sayidina muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñaar yii su ma defee yitte biddiwu dulluñ ba ca kaw asamaan mën naa cee jog sama ñaari kostan li ci des mooy yitte nag yitte rek moo ci des mais bunt bi ubbeeku na fa tabaarakallaahu jaam lañu tudd ñu ngi bokk ci ummatu sayidina muhammadin rasulillahi la boroom xam-xam ba waxoon ibrahim addasuuqi ma daaneel daa musa wax ni ku xëy ku ne war ngaa sant yàlla yii ñu ni ko ban ak ban mu ni su la yàlla mayee ba nga yeewu sëpp say tànk war ngaa sant yàlla ci yii may bëgg a wax ñu ne ko bu njëkk bi mooy lan mu ni neel alhamdulillahi alladi hadaani walam yajalni dallan mu ne war ngaa wax ni maa ngi sant yàlla mi ma gindi te bu ko neexoon ma réer moo tax sa góor gu tedd ga Seex Abdul Aziz radiyallahu taala anhu nangu naa ci Seydi Mouhamadul Mansour doomam mu ni bu musaa dem ci mbooloo mbooloo mi bari lool ñépp dar ko muy génn ñépp dar ba oto ba sori ba gësatul mbooloo yi mu daal di ni alhamdulillahi alladi li hada ma kunna linahtadiya lawla an hadana xam nga ni de ñépp naan abdu abdu abdu mu génn ni maa ngi sant sama borom bi nga xamante ni moo ma jubal ci lii ba ñu naan abdu abdu waaye bu woon moom lii du am kon maa ngi koy sant déggal moo tax ab jaam lu mu mën a am na doollee sant yàlla subhanahu wa mu ne kon na nga gërëm yàlla mi la gindi te ma doon nga réer que alhamdulillahi alladi hadaani walam yajalni dallan ñu ne ko ak ban mu ne bokk ci ummatu sayiduna muhammad sans la bokk ci ummatu sayiduna muhammad sans la kon nag war ngaa ñaan ni alhamdulillahi alladi jaalani min ummati sayidina muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant sama boroom mi nga xamante ni mi ngi ma boole ci xeetu sayidina muhammadin rasulillah ak ban mu ne waaye waaye yàlla dimbali la ba foo bëggee faj sa soxla faj ko suturaal la ba foo bëggee la faj sa soxla làmb faj sa suturay nit la waay dëgg la mu ne kon nag war ngaa wax ni alhamdulillahi alladi lam yajal rizqi fi yadi gayrihi maa ngi sant sama borom mi nga xamante ni moo tëyal boppam wërsëg yi di ko séddale wa maa min daabatin fi ard illa ala allahi rizquha kon maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni nii jëlul sama wërsëg teg ko ci loxol nit ñi bala maa am fu ne ma wëndeelu fa moo tax yonent bi nee na ko yaakaar ni sa wërsëg nit ña ko boo xëyee topp ndakaaroo fu ne nga topp di nga dox ba say kostan gën a sew sa ndoxum jë dem nga tilim fënd te doo am sa faj sa soxla dangay ngay tëye ci yàlla miy faj soxla yi mu faj sa soxla mu ne yii jar sant yàlla subhanahu wa waaye ma teg ca alhamdulillahi alladi jaalana min talaamidi cheikhina wa sanadina sant yàlla mi nga xamante ni itam moo ñu boole ginnaaw loolu lépp ci waa njabootu Sayyidi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala an ndax yombul ndax yombul El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu taala an daf ne yammim bariha Tijani hunaka tu'ta al amani in zurtahu laka yabdu ma qultuhu bil ayani soo bëggee sa ba aaja faju jublul rek Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala kon mbokk yi lii ak sant yàlla la dama koy faral di wax ne nun sax waxtaan indi wunu fi waaye ñu ñëw rek ziyaar ko jéggalu ko yàlla xam na ni mbir mi daa fekk nekk ñu ndakaaru te moom du léegi wax dëgg yàlla bi ñuy àndanteeg moom ngir cofeel ak jàll du léegi te boobu ba léegi mi ngi rafet fu ko gisee rek mu gën koo beesal kon nag yal na ko yàlla dolli sutura ah li mu bëgg ci diine ji ak tariqa bi tabaarakallaahu ak digganteem ak boroomam yàlla xam na ko yàllaa ko ko gën a xam tant bi muy tàntal yonent bi jaami yàlla yi di fi ñëw seetaan naa ko ci internet bi gis mbooloo ni gis kilifa yi muy ak sant yàlla ndax kat xawma kañ mais damay faral di wax ni ñiy wooteel yàlla fi mu ne war nañoo faro fagaru nekk di commentaire ci saal yeeka naan attaaya rek di commentaire ak ci am céepatu dumb du faj affaire bi du ko faj de ñun nag suñu gémmiñ loolu la dañu ne ci saal yi kiipa tooka euh, mucc mucc ak lu ne ñu koy def déedéet du loolu da ngay fexe ba créer dara fexe ba am sa fukki nit sax di transmettre mission Sayyiduna Muhammad ci ñoom mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nga fexe ba kenn gë gën a yàlla ci yow wala mu bëgg yàlla ci yow moo gën àdduna ak la ci biiram nga créer dara. gis nga tey ca xutba jumaa ji sama xutba jumaa chérif dama leen nii li ñuy tuumaal tey dinaa ko weddi ma ni leen gis nga yonent yi yàlla leen nii am na lu paase soo ko seetloo ba seetlu ko nit ñi dañu yaakaar ni yonte Yàlla Isa daal xanaa da doon ab fecckat la woon wala nangam wala doo xam sax li xew lan la bu commencé ñu ne da euh, yonent Yàlla saa juddu na nañ feet ñee di fecc ñee di nàngam te cent personnes yoo jël ci ñu koy préparé quatre-vingt-dix yépp dañuy tuddoo ay jullit ma ni leen loolu du dëgg ku xool li Isa ay saa juddoo xool Imraan wéy juru tabaarakallaahu Maryam wu góor xool xannata bintu faaqud mi yaayi maryam mu jigéen la mu ñaanoon yàlla ni kii bu juddoo a nekk ab jaam bu sell sarax naa la ko bi mu juddoo nekk jigéen sax am na lu ko metti waaye dafa jëkk ñi ngi wallahu aalam bi ma wadaa ko église ko fa ñuy jaamoo yàlla waaw defe nga ni tey jii lan ma ni leen yàlla lii de fi wax naa léegi may wax ni ñun li ñuy def te yonent ca yàlla la départ yàlla moo tànn ay nitam allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min an naasi la yàlla wax yàlla nee na maa tànn ci malaayika yi ay ndaw ci ñan leen di yónni ci yonente yi ñu déey leen mu tànn ci yonente yi ay ndaw ci ñu leen di yónni ci jaamam yi ñu déey leen moo tax ba fii ma lay waxee nii ku ñu dul déey ci juum ngay dëkk fokk nit wut ku koy déey ñooñu yàlla yónni leen ni ay nit ñu baax lañu ñu juddoo ni ñu juddoo wa bar eh, eh, ma leen dafa temps yi dañoo waroon a jël benn aaya alquran ñu def ko ci télé yi def ko ci journaux yi def ko ci ñépp ñépp dégg ko góor ñeeg jigéen ñi mooy lan maryaama la mu tontu woon malaayika ma ba yaa ko yàlla yóbba yoon yónnee pour mu soppax nde ko mu am ku ñuy wax isa alayhi salaam mu jox ko mu nekk jëmmi nit ndax bu dul jëmmi malaayika du ko attan waaye ba mu ko defee jëmmi nit ba mu ko jigee mu geesu gis ko dafa tiit ne audu audu birrahmani minka in kunta taqiya ma ne aaya boobu dañ ko waroon a jël rek bi birrahmani minka in kunta taqiya li ya fi ne yàlla moo yoon tànnoon malaayika yi yónni leen ci yonent yi mu tànn ma yonent yi tànn ca ña ko soob yónni leen ci jaamam yi yonent ya dem na mu tànn ci jaamam yi ña ko soob la sëriñ si Ahmed Tidiane yi waxoon bu ñu nekkul nabi yu mursal jëng nga ñu nekk wali yu mursal ñooñu nag foog ñu taataan ci seen keppaan pour mën a naan ci ndox mu sedd mi nga xamante ni ku ci naan dootoo marati sëriñ ñu ngi lay ziar ci mbaax gi ci yiw gi ci tabaarakallaahu ni mu amlante ak nit ñépp yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam su maam Seex Alxaaji Maalik nee na ci yii la woowee wootee ba yi gëm wa bil gadawaati wal aayaati jaau kama jaau alal wajhil mazuni ñee dafa xareet ñoom ñu ñëw ñee da leen a dañoo gis jëmm ji rek daanu ñee dañoo gis jëmm ja rek sopp ko ngir jëmmi yàlla ngir mbaax ngir yiw loolu moo tax si alxaaji Abdul Aziz radiyallahu taala anhu benn damaa ju génn ci jumaa ji benn xale topp ma di waxtaan ak man di waxtaan ak man di waxtaan ak man di ma wax ni dama bëgg euh, ma dem ci xaaji Maalik Maodo mu jox ko tariqa bi nangam nangam ba ñu egsi ci Seex al Xaaji Abdul ma ne ko Alaaji Mansour soor bi muy wax doon na wax naan lil mar'i la shakka axlaaqun tadullu bihi ani su'aali fa ma min maanika da ko doon dénk Alaaji Abdu di ko ko wax waaye xam naa ni booba gis na ko bu yàgg mu ne nit jarul diwu mooy maamam ak nàngam nangam mais balaa yooyu ñëw nañ xool comportement am rek balaa yooyoo ñëw nañ xool comportement am nañ xool jëfam alhamdulillahi rabbil alamin kontaan nañu bu baax ci teew nit di la jégg lu ñàkk ñëw gi xam naa matewuñ ko nag waaye lu mu bon bon ah comme nun danoo waroon a ñëw jàppale la ci tegum sees yeeg yooyu nu ñëw rek boole sunuy yu kenn xamul waxa waxa waxa wax ba doyal rek pour nga xam ne ñun itam wax dëgg yàlla bëggoon nañu indi suñu participation mm-hmm. fa tabaarakallaahu yal na yàlla boole defal dégg ak topp mbir mi nag a ngi nii ñaar daal maam mën Mansoor laajoon na ko ni ñaar yi ku ko bëgg te mënoo def lii xaw ma fooy demee ñu ne ko ban ak ban mu ne fa kay fartiqaar ul mar gi min gayri sullamin waaw nan la nit di yéege ci amul escalier bu mu bu mu yéeg étage bii tey jii rek boo ko bëggoon a yéeg ni fër bu ba léegi nit ñi téye la de nooy fooy jaar ndax eh, nooy ci escalier bi ngay yéeg ba dem xaj ma maam xaj Mansour nee na nan la nit ki mën a yéege ci amul escalier bu muy jaar wa kayfa bilaa xablin yurawika biiru naka nga mën a roote ci ab teen naan ndox mu sedd te amoo baak boo jukkee foog ñu wuti escalier foog ñu wuti baak yàlla yàlla defal ñu dégg toog ngeen jéggal ma ci kàddu gi guddal naa sax ndax man ma ko rek laa waroon <laughs> ko kàddu gi ndax bi nga ñëwagul dama doon wax sax alaaji ne ko bu njëkkati kàddu ci sëriñ ñëwul waaye ma xam ni bu nu bàyyee itam kii waaye dañu waroon a xaar ba ëlsi eh, jox ñu fi ñu yëkkati Eh, moo tax rek ñu doon wéttalinte ak njaboot bi ñu ngi nuyu jigéen ñi te góor gi saw ñu koy nuyu bu baax suñu jarbaat bi tabaarakallaahu bi Modou Ngaay kii suñu jarbaat la tabarak kenn na ci Seydi Hadji Malick si Maodo moom mii kenn la ci moom wéttal la ci moom loxol ndeyjoor la ci moom ñun ñii ñuy taalibeem ndax bàyyi mooy suñu sëriñ alxaaji bàcc mi kazalika Euh, li may njëkk wax nag gannaaw bu ñu leen sante yéen ñépp góor ak jigéen mag ak yow ndaw ñi yoroon organisation bi teg ko ci loxol mbay jum su ma ko tuddee rek tudd naa képp ku xam ne koo xam ne rek jàpp nga ci organisation bi ba mu jaar yoon tabaarakallaahu <coughs> xam naa ana Maley Njaay mu ngi fi waaw Maley de moo ko fi waxoon xam naa wax bu baax la wax bu kenn mënta dindi la nee na programme yi fii am ñamu àjjana la bu ñëw dàq bi weesoon ah gars yi ne nañ bii moo dàqati yépp yàlla na tëddee noonu nag at bu jot nag ne bii moo dàq yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla def fa tabaarakallaahu Sidi Maxtaar Kunte bi nga xam ne moom daanaka bakkan bi la topp moom fu bakkan bi dundee rek foofa lay nekk dafa tase rek mu woo ma jotu ma mu woo Mansour mii fekk maa ngi ci yoon di dem mu ne ma mosul mosul tas rek ma woo la waaye dama lay woo wax la ne bii nag moo dàq yëpp yëpp yëpp mm-hmm. te wax na dëgg mosuma woo sax di ma wax waxu mm. waaye dafa tas rek bi may dem ci yoon bi la ma woo jotu ma mu woo Mansour mm-hmm. ko mu ne dama lay wax ne daal bii moo dàq yi fi mos a jaar yëpp ah, loolu nag day na sant yàlla ci organisation bu dal kon mbay jum ñu ngi lay sant nga santal ñu képp ku la doon jàppale ba ci Mansour Thiam di santit ndey faatu jon ak Cheikhou Ka ak Atumaan Joon ak ñi leen doon jàppale ci waañ wi yéen ñépp ñu ngi leen di sant tabaarakallaahu yépp jaar na yoon képp koo xam ne daal mbir mi man ma ko gisee ñépp dañ ko def seen yi fi bopp ñii ngay raxas ñii ngay bale ñii ngay organiser xam nga ne moos kuy gàmmu ne tër dem sa yoon jaaroo fa ñaari fan yi ñaari fan jaaroo ma fii dama jóge fa may jógee la jubali ca baas ba comme ñépp ndax bi gaa waxee dama leen ne léegi noonu lay def ndax awma daayira yu may recevoir pour ñu di ma jox enveloppe awma fédération bu may recevoir pour ñu di ma jox enveloppe autorité yi ma yàlla booleel ah sequma ak ñoom cérémonie officielle comprendre nañ ma comprendre naa leen bu guddi gi jotee mooy ku mel ni monsieur le maire Alioune Sall moom daf may laaj rek ban heure laay ñëw at bu jot ma ne ko jubaleel ca bâche ba rek deux heures di matin na la fa fekk toujours it noonu la koy defee ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax bu ko neexoon yeble bu yebaloon Cheikh Mbàkke rek mu doy wala mu yebaloon alaaji moor moom muy àndal moor sekk mu doy waaye day ñëwal boppam ànd ak soxnaam te nit na fu muy dem ànd ak soxnaam ñeme na fa kon ñu koy sant di ko gërëm di leen sant yéen ñépp loolu su ma ko mënee yéen a tax waaw ah, bi zéro fekk la ci tant bi loolu moom xam nga ne moom ku ko ñeme ña nga bàyyi ca tant ba ñu wutu la fa wóolu nga leen te bi ma ñëwee gisuma dara lu fa mejj wala lu fa sikk wala lu fa nit di jubbanti wala lu fa nit di orienté wala nit lu fa nit di defar amu fa lépp a jaar yoon tabarakallah kon nag yal na yàlla wutu ñu fayal ñu def te boole ñu fay gi ñun ñëpp Oustaz Abdul Aziz tu ngi lay yóbbante nuyooyu ci suñu soppe sa xarit sa wëllëre di Abdoul Aziz Kébé di ci alxaaji Abdoul Aziz Kébé di ci yóbbante Issa Faye di ko sant bu baax jigéen ñi yéen ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax su ko defee kon li ci des moo di sant waa média yi fi ñëwoon jërëjëf jamil yaa ko yónnee de jamil la wala Seydou Nour waaw dama leen jaawale yéen ñaar Seydou Nour bu am yitte la moo ko yónni Ibu Ibu jox ma ko waa Sidor Sedi Sodiprom ñu ngi leen di sant bu baax ki leen fi teewaloon muy Daawuda Ka fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant tamit Top FM Dakar 97 point 8 rajo et al munawwir al média site internet ka leen fi toogaloon jiite ko ñoom it en direct lañ ko doon def muy Seydina Alioune Guèye Africa 7 télévision ka leen fi teewaloon muy Oustaz Alioune sàll suñu bos bi ngeen xam taalibe TV tabaarakallaahu Serigne Jiili Ñang moo leen fi teewaloon te ñoom keroog grand théâtre lañu gisante rek ñu ne ma daal ñu ñëw ñëw nañ bi mu paasee it ñu ngi may wax ne dugal nañ ci xawma un milliard de tijaan dugal nañ fa cent et quelques photos loolu yëpp ñu ngi leen ciy sant 7TV ñoom itam ñu ngi leen di sant ndax Amadou Kébé ñëwoon na sama sama yëfu bopp nag muy Kono Kono TV bu Thierno Cheikh Oumar Bachir Mountakha Taha Cheikh Al Hadj Oumar moom itam waa këram yi ñëwoon nañ. filmé nañ ko fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak suñ bosu bopp bii di Cherif Dabakh TV ci njiitalu Omar Diop ak fa tabaarakallaahu Abdoul Aziz Seck Oustaz Abdoul Aziz Thiam Abdoul Aziz euh, Diop ñoom ñépp ñu ngi leen di sant ndax àddina bi yépp seetaan nañ ko am na ñu ma woo ba euh, ambassadeur ambassadrice bu Banjul bi toogal Banjul ca Malaisie moom ak njabootam yépp nee nañ dañ ko seetaan ba mu jeex te Malaisie différence am ak Sénégal différence su heure bi ñu Malaisie rawee nañ ñu huit heures de temps ñoom kenn xamul fi ne ci ban heure lañ nekk rawee nañ huit heures de temps fa tabaarakallaahu am na. mbokk mu nekk ca Israël ca ambassade ba ca ambassade ba moom fa lay liggéeyee moom it ne nañ seetaan nañ ko ba bër set Corée du Sud tamit Corée du Nord kadalika dëkk yi gën a sowe sori yëpp États-Unis moom waxe noppi Europe moom bi ma leen laajee dañ ne coupéwul benn yoon senegal nag boo gisee muy am coupure suñu internet bee baaxul dafa faible ñun suñ lépp a Afrique moom seen lépp a waaw su ko defee nag kon ñu ngi leen di sant ah Abdou Aziz Seck rek laay yóbbante ñu ne léeg-léeg rek amoon na tuuti problème mu son xëy na problème technique la rek mais yàggut su ko defee kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baloo ak ñëpp réy na def laa ilaaha illallaah am na ci montage yu rafet xam naa ni ñooñu war nañoo mën a kii de euh, ni ñu koy waxee liggéey ci télévision léeg-léeg ñu won ma ci yoo xam ne day rafet lool loolu nag yépp sopp nit ki la rek waaye maa ngi seddaloo àddina bi ne lu ñu ma sopp sopp naa leen lu ko góor ak jigéen nag mag ak ndaw lu ñu ma sopp rek sopp naa leen lu ko moo tax nañ ma ñaanal yàlla rek li sëñ Abdou wax léegi eh, ma bañ a wàcc yoon wi rek waaw alhamdulillahi lazi hadana li hada wa maa kunna li nahtadiya lawla an hadana allah waaw loolu yàlla ñu ko yàlla boole defal waaw yàlla teg ñu ci siraatal mustaqim fa tabaarakallaahu di sant Seydi Mahmoud bu baax àcc bi may tudd waa Italie yi nga baal ma sama xelafaay waaye lépp ak abu ana abu lépp ak abu rek moo tax ma fàtte waaye Mahmoud maa ngi lay seedaloo ne ñi may tudd ñu jógee bitim réew yaa ci waroon jiitu at bu jot moom it mu dagg billet ñëw jógee Italie mu nga ne ne toog ren rek la àndul ak soxnaam waaye mook soxnaam ak doomam ñoo doon ànd ren soxna sa dem Paris moom mu ñëw fii kon nag ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla loo mën ren yàlla nga mën déwén lu ko loo am ren yàlla nay asakaay li nga war a am déwén di sant ñëpp. di gërëm ñépp ñi di sant bu baax nag Alassane Sow ak Khady Sow ñoom ñu nga bitim réew waaye di sant nag bu baax bëggul ma wax ko Mouhamad Lamine jon jon bii nit ku baax la bés bi may tudd ajjuma bay del si tey ajjuma bi doon tudd ajjuma boobu la doon tudd ma waroon na tuddi doomam ma ne ko ku sikki mam lakk do bosam lay talafay rek waaye tal te fay ma sikk moom jàmbur sikk ma lakkandoo ma ne ko maa la waroon tuddal si waaye tudd yi même heure la te àjjuma la dafa xat kon demal ci imam Ngom comme yéen bokk dëkk te surtout maam alaaji rawaan la nga ne ko man maa la wax ni nga ñëw ci moom pour mu tuddal la sa doom imam imam Ngom su la tuddalee doom man tuddal naa la doom ndax loolu la yàlla dogal maag imam Ngom benn lañ te surtout maam ji rawaan la kuy dabu barke ba yegg ci kër maam alaaji rawaan am nga barke mm-hmm. ndax tudd doom dabu barke la rek mm-hmm. kuy dabu barke nag ba dem ci kër maam ji rawaan am nga barke ndax Seydi Hadji Malick ko may barke mm-hmm. gannaaw liggéeyu boppam waaye moom mii dafa yëkkati benn enveloppe jox ma muy ma deux cent mille francs nekk mu ne ma bii maa la ko jox te day ngénte ma ne ko yow ngay ngénte di joxe deux cent mille yëkkatiwaat beneen enveloppe ne ma deux cent mille la ci ne sama soxnaa la ko jox xaalis dafa neex ci bakkan de rawatina kuy ngénte mënoon na ma rek ne am deux cent mille yi maa la ko jox maag soxna si waaye dafa yëkkati deux cent mille ne ma enveloppe bii soxna see la ko jox deux cent mille la ci ne bii sama enveloppe la deux cent mille la ci ne maa la ko jox ma ne ko yéen sikkim lakkandoo yéen ñu dimbale loolu yëpp am na ñu joxe xeebaluñ am na ci benn xale boo xam ne mu ngi fii ci xadara bi mu ngi may gis maa ngi koy gis ci bosam laa gën a kontaan dafa ma fekk ci saal bi bi ma resee ko recevoir waa kër Cerno Bachir yi ba pare teraange fii Cheikh Al Hadj Omar indi ma recevoir leen ba pare mu ñëw ne ma sama participation lay joxe yëkkati 300 francs jox ba léegi cent yaa ngi ci sama kalfe dama ci jënd naanaa def ci attaaya mu des 200 ma jënd ci 100 francs gerte léegi des na 100 francs 100 francs yaa ngi nii ba tey yàlla xam na ko sans pour ngeen xam ne sax kàccu ma gis nga 100 francs yaa ngi nii hmm? waaw pour ngeen xam ne kàccu ma damay bàyyi ba gerte gi ma jëndoon jeex ma jëndaat ci gerte pour woon ah? naa dégg Sidi Ahmed si. mu ne mas na dégg Sidi Ahmed si. ñu toog ci pom bi. mu toog ci pom bi. am ñu koy jox. am ñu koy jox. am ku yëkkati dara jox ko. am ku yëkkati dara jox ko. lii mu ne lii. sama poche laa koy def sama laa koy def. su ma demee. su ma demee. joxe ko joxe ko. ñu toggal ma ca. ñu toggal ma ca. lu ma lekk lu ma lekk. ndax sa soppe. ndax sa soppe. bu la joxee dara bu la joxee dara. boo ca jëndee loo lekk sax boo ca jëndee loo lekk sax. mën na caa def yàlla mën na caa def saafara. te billaahi te billaahi toog naa ci daara ji toog na ci daara ji benn jigéen benn jigéen feebar feebar neen dem na fu bari mu ne dem na fu bari pour faju fa pour faju fa waaye yàlla dogalu ko waaye yàlla dogalul wér foofa. nee na mu tëdd ba guddi. mu nee na mu tëdd ba guddi. mu am mu am lu mu gis. mu am lu mu gis. mu wax ko ni ko. mu wax ko ne. demal ci ñi nga bokkal daara. demal ci ñi nga bokkal daara. ñu am lu ñu dajale. ñu am lu ñu dajale. jox la ko jox la ko. nga togg ca loole. nga togg ca loole. mu ñëw wax ma ko. mu ñëw wax ko ko. ma wax waa daara ji loole. mu wax waa daara ji ñu dajale jox ko jox ko. yaakaar naa ni loolu am na ne la mu ca yaakaaroon am na de. <laughs> mooy wér na. wax na de ñamu soppe day wérloo. fa tabaarakallaahu pour wan leen ne ki joxe li gën a rëy ba ci jo ki joxe li gën a tuuti ñoom ñëpp laa yemale. xam nga dama tudd kale tudd ma ñeneen waaye bu ma tuddee kii tudd cent francs yi xam ngeen ne kon ñëpp ko dugg nañ ci biir dëgg la wala du dugg nañ ci biir pour wane ne li gën a rëy ba ci li gën a tuuti ku ko ci def rek. defal naa la ko ci 300 yi nag moom dama yëg ne maa ko moom moo tax ma jënd ci naana jënd ci gerte mu des ma denc ci sama poche waaye som yu mag yépp nag dugal naa ko ci gàmmu ndax yooyu ñemewu ma ko lekk gàmmu gee ko moom waaye 300 yi moom dama yëg ni maa ko moom waaw kon xam nga kon mbir yi du benn dama yëg ne ñii gàmmu gi lañ ma ko joxee def naa ko ci gàmmu gi waaye 300 yii moom dama yëg ne maa ko moom moo tax ma jënd ci naana ak gerte attaaya ci tabaarkàlla yal na yàlla dolli sutura sant nañ ñëpp daal gërëm nañ ñëpp suñ ñaan yeggul fen waaye ñaanal leen yàlla ñëpp yal yàlla def képp ku ci def yàlla defal la barke ku amoon yéeney def ci te amoo it yal la yàlla defal barke ndax yéene rek fay na innamal amalu bi niyaat waaw Euh, niyatul mumin ablaxu min amalihi waaw mm-hmm. ah, yéene day gën a for jëf léeg-léeg fa tabaarakallaahu yéene ju àndoon nga bëgg a jëf laa wax de waaye yéene kese kese kese rek li sëñ maam soo doon wax li maam ngor topp doon wax rek tiimal sa boora ceebu jën naan ko yaa niin yaa xonq borom daara jee ko daan wax billaay yaa niin billaay yaa xonq billaay yaa saf te tibboo cheikh doo suur de waxu kese kese kese du tax nga suur da ngay dànk kolkolal seex kañ bu ko defee boo sàqamee ñetti yoon ñeenti yoon di nga suur loolu mooy wax ak jëf kon yal na ñu yàlla defal sutura ñu bañ a guddal wax ji daal